man lu ma bëgg comme constitution bi suñ ko defaraatee bëgg naa see gis daal loo xam ne dafay dooleel jigéen yi ak ndaw ndaw yi because soo dooleelee jigéen yi comme dafa mel ni dooleel nga Gambia bi yëpp because jigéen yi tey soo gisee activités yu nekk di def yëpp suñ paree back to their family la ndaw yi tamit ku leen jàppale daa di future leaders so nit na pour ñu bill ay places yoo xamante ne ndaw yi dinañ fa dem di liggéey am seen antenne living soo gisee back way bi yëpp mu bari loolu la because ndaw yi amuñ fu ñu liggéeyee